dañ teg bagage yi rek tout tous les net va voir euh, Ramatoulaye Sarr euh, ci benn charrette ak Ndeye Fatou ak Marème Koli ay xoolal mbaam bi moo ngi siñ ret la <laughs> mbaam ngi siñ ret mbaam maa ngi siñ ret <laughs> moom maa ngi siñ de. ay xoolal mbaam bi mbaam bi mu ngi siñ rek. mbaam maa ngi siñ rek. dañ koy tëddal si du baax de image bi tëddal ko dañ koy tëddal caméra yëpp la la xam naa <laughs> ay jël bi tamit am nga problème